nga ni fa duut sa baaraam loolay metti seen xol yi. toog sa ordinateur di tappe di kaj kaj yi kaj kaj yi suba ngoon di saaga di xoloo. bépp journaliste bu ñuy fay xaalis pour nga defendre opposition wala nga défendre pouvoir xamal na yow tu es le dernier de la classe. indignité caractérisée. ayez le courage de dire la vérité au Sénégalais. doomi soxna yi fi nekk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquran yi ngir ragal gouvernement bi internet yu sans ñu leen di nuyu bu baax am mbégte di ànd ak yéen seen émission tribune d'actualité tey ñu koy dalalaat ndax yéen a ngi koy tàmbali miin Euh, ci kër gi ci sans limite saa yu réew mi amee fi mu toll dañu koy woo di euh, sàkkoo am ci moom xalaatam ak gis-gisam ci tolluwaayu réew mi euh, Serigne du Asta Mbacké tey moom lañu fas yéene àndal aborder yenn pàcc ak it yenn ponk ci actualité bi ba tey ñu ngi koy waxtaanee. demam ca États-Unis ca kanamu Nations Unies la fa jot am yooyu yëpp euh, di le président Macky Sall ak ñàkk fa tertu di patriote yi nañuy déggee message boobu ak ni ñu gisee ci Afrique également ginnaaw bi ñu du euh, dissoudre euh, parti Pastef gis nañ geneen taxawaay ci biir Afrique ñuy sàkku ci ñu gàntal loole tey ñu bàyyi Ousmane Sonko ci mu bokk gis ngeen également ay rassemblement yu ñu annoncé waaw vendredi bi ñu euh, dëgmal ndax dana antoom déet boole ko taxawaay bi nga xam te waa Pastef am nañ ko jamono ji euh, ci fexe ba seen ak ak seen yeleef ñu jot ca waral ba ñu jaar euh, ca CEDEAO boole kook Serigne Assane Mbacké xam ngeen ni génn na kaso ci jamonoy màggal gi barki démboo Ndiaye la def déclaration bu njëkk ginnaaw génn gi am na kàdd yu bëri yam ñoo rotal jamono boobu également ñu gis Serigne Bara Ndiaye moom it xam nga ni féexal nañu ko euh, ki ñuy dalal daanaka mën naa ne euh, daje naa moom su ma sañee sax wax ni jot nañoo reer loolu moom koy sàcc wax la ni su ko defee daañu waxtaan ah, ak eh, jëmm joojee ak eh, la nga xam te ne mooy mujjantalam ci actualité maa ngi lay nuyu bu baax kilifa gi am mbégte bu yaa sëñ Modou Asta di la dalalaat ci eh, sans limite. Ah, Ousmane maa ngi lay baax di nuyu mboolem ñi nga xam ne itam ñu topp ci site bi waaye ak uh-huh. mbokk mi taw na ma àndal ci baraj ñoom bokk dañuy coiser naan da ngay bàyyi sama li si ñaan sëñ Modou Asta. sëñ Modou Asta sëñ Modou Asta. sëñ Modou Asta <laughs> <laughs> sëñ Modou ah, la ñu ah. ma ñu hmm. ah, maa ngi siyaare itam mboolem ñi nga xam ne yéen ni nga ko noonu ko ko waxee rek. Hmm. naa ne la alors junj naa sànq ay actualité yoo xam te ne dinañ ci taxaw dèjà nan nga dundee la xew ca États-Unis ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, patriotes yi ngeen doon bu ko mënee waxee parce que gis naa ne yaa ngi takk sa Euh, bracelet dinañ ci ñëw noo ko jàngatee. waaw ñoo ko jàngatee loo xam ne la. kamaatu ji bi tuddaat wala nga wax ne nga leb les bornes yi lay fay. Ah. lii boo fàttalikoo 2011 Macky Sall ñii def na ko fële Amérique ay booy ngir ñu def noonu Ablaye Wade yéen hmm. booba Ablaye Wade dama ko teewee bi mu ko teewee booy def ko nii ñu ko def te boobaa li réew. Hmm. ci loo xam ne kenn rafetlu ko Ablaye def ko da lay gën a garaaw mooy. mooy Macky Sall ki ki mu doon dem di weeje lem ko doon weeje ñoom ñaar ñoo àndoon di ko def parce que nit ki mënoo ànd ak moom huit ans. ci liggéey boo xam ne douze ans la war a doon. ba a mag ci état bi. Hmm. demoon ba weesuwul hmm. nga nekk président Sénat rek moo ko gën a rëy boobu ci jamono di Pape Diop. nga nekk premier nekk euh, lu nekk ci biir réew mi ànd ko kenn ki moo dem ba ci dajal moment yi nga daal takk say bagage ànd ak sa nit waaye laa nga rassemble ay nit teg say pexe ak say moyen ngir Abdoulaye Wade wax ñu jox ko bañ def ko dafa hmm. nga koy benn preuve dafa wane ne rek monarchie lañu bëgg indil bëgg feeteeg doomam dafa ñu bëgg a forcer dañu bëgg li bañ bëgg laa moo am différence lool ak ñooy ñi fa nekkoon ñoom lañ doon def mooy hmm. dafay jaar ay élection dafay jaar ay manifestation ay nit dee ay nit comme dee nañ xamuñ ku leen rey nit gis nga bu ñu ko romboon fii ci mbedd mu jékki-jékki rek dee kooku kenn amul droit sax dem jëlee ko suuf ku téye woon sa doom nii say loxo ba mu dee sax amoo droit dem suuf ko. foog ñu seetlu ba xam ko war a yóbbu ci médecin mu dëggal ak def ay ay autopsie wala mu xool ba ne kii dee mort naturel la ci koo xam ne ci ay manifestant bu doon ñoom ñu doon manifester ñu rayante ci seen biir sax enquête war na am même bu doon ñu jàkkaarloo lañ leen manifester muy waa police ak gendarmerie enquête war na am mais dee gu amul enquête amul dara. loolu la ko waa patriote di ko réclamé fële ci Amérique parce que fa pays de la. te anam ni ñu ko defee yow boo nekkoon ci Amérique noonu nga koy def. lu ko raw lu ko raw laa koy defee te loolu maa ko rafetlu parce que sax li ko rafetlu mooy justice moom amul biir Sénégal mais am na bitim am ci bitim réew. parce que bokk na ci rek noonu ñu ko wëree ba taxaw ci kanam otelam police ak gendarme mooy ñëw di ko sécuriser. bu doon Sénégal du demee noonu. Sénégal dem dem képp euh, place obélisque képp. ngir wana sa naqar képp dañ koy tane waxuma nag dem fa président ba nekk nga ne ko li ma naqari dama la ko ma dem ba pale di jàpp ci biir pale ñoom ñooy def loolu te may nañ leen ko nag mais obélisque gii hmm. akapes mii terrain yi et cetera et cetera benn benn rassemblement politique bu ñuy autorisé bu dul boo xam ne waa APR ñoo ko def fii Sénégal am actuellement. Ah, yàlla loolu ñu ko jàppee parce que fii kenn ko da nga am droit manifeste ak wax naqar ak noo ko yëg noo ko sentir ba mu des daf tere te manifestation yi ñu autorisé moo ëpp mbooloo foofu. Hmm. Sonko mu demee ACAPES. oui la fa daje ci mbooloo est-ce que daje woon na fenn ci keroog bi ñuy manifester daaxante alkaati yi di parce que manifestation yi ñuy yi ñuy interdit maanaam la ñuy daj ci interdit ngir mu bañ am ci ay moyens yu ñuy jël maanaam police gendarme bu ñu ko dee def ci yi ñu autorisé tooguñu waaye la bañ mooy bàyyi leader bi mu ñëw mbooloo mi bëgg la àdduna bi di ko gis loolu mu nekk problème waaye ginnaaw lay tukki la def ngeen loo xam ne jihaat gunu koo kawe hmm. parce que bañ ñoom ñene foofu ñoom ñoo tànne waa fii ñiy jàpp ne Sénégal yi xar kanamu Sénégal lañu lañu lañu lañu ñaawal ci ñi jàpp loolu. ci ah. demu président Macky Sall surtout ci euh, bés bu mel noonu ñu defee li ñu defee noonu am ñu jàpp ni dañu ñaawal xar kanamu Sénégal. yow loolu nga jàpp jëlaat écran plat. dikk ne kii dañ a indi sàngam dañ ko war a leeral. loolu jébaane googu waaw. waaw ko war a leeral. loolu ñun bu ñu ko mënoon am fi Sénégal duñ def bitim réew ko fa lijjanti ji. Hmm. ka njëkk a ñaawal dara Sénégal mooy Macky Sall mi fekk fii Sénégal si si war fay am mu war a leeral mbir mi nangu ko leeral bu ko fa leeral ñu dem fa nga xam ne moom bu fa demee même bu ko fa leeralee de mais nit dina yëg ne lii ma ngi ko def ci réew mi di ko nëpp nëpp loolu waral loolu. Hmm. te ñoo gën a xam ne gis nga ñu la ñuy def defuñu ngir gën xamal ko adduna bi gis nga Amérique américains yi ñoom. dafa bokk ci seen état yi ni ñuy servir seen i population moo ñuy contrôler adduna bi ak la ciy xew. américains ñoo la gën a xam manifestation yi fi am ñi fi dee ak ñi leen rey xam nañ lépp. Ah. xam nañ di di à la fin xam nañ lépp parce que ñoom ñoo ñu ëpp ay renseignements yàggul. Euh, bi fi sa sorsi bu si fii kan moo fi mënoon woote téléphone mhm. kan moo ko man aussi bi fi Barack Obama ñëwee wàcc dem palais bu Dakar. ba mu génnee ñibbi ci dañ jàpp seen après. ñoom ñoo contrôlé adduna bi xam nañ la xew waaye li ñu jublu mooy léeg-léeg ñoom américains yi dañuy ànd ak chef africain yii nii di leen di leen suulee seen i ñaawteef ngir ngir ngir lu ñu leen ngir lu ci seen réew mi yàqu gi ñu fi nekkee parce que ñoom li ñuy soxla ay ressources naturelles la ñuy soxla ko pare nañ loo def ñun ñun ñu ànd ci ak yow. amul waaw mais waaw président même président boo xam ne yow pare nga itam. pour maanaam xañ leen ko ñoom américains yi xañ leen ko ñoom européens yi. xañ leen ko et cetera pare nañ yow pour loo jubal ci seen réew loo fa mën def ci lu baax ñu suul ko leen fekk ngeen waaw da ngeen bëgg a manifester ñu ne mënu leen ko def ngeen nangu. déedéet ñun réussite totale lañ parce que Macky Sall bi muy bi muy débuté fii Sénégal li mu gëmoon mooy mooy état ku ko yor ak alal dégg nga tey loolu ab démocrate te doonu ko. depuis yor état ak doole te doo ab démocrate moom gëm na ne boo nekkul démocrate tey yor réew mel ni Sénégal bu la neexee da koy yor toute la vie sa dund ba mu jeex te doo ko joxe loolu la gëmoon. boobu man moom muy ñàkk bokk ci élection de. Hmm. waaye moom ku ko neexul sax doo bokk loolu la doon gëm ci loolu la doon dox. te a bokk mu forcé jaar fu ne ba mu jaar forcé jaar fu ne génn ci mu ne ba xam ne lii nekk da cay teggi loxoom ñamu ne woon du ngeen bokk ngeen jàpp ne bu ñu jokk indil ko problème mu ne kaay leen bokkaat ah. est que loolu du logique la ci am xel kon li nga ñun li ñu comprendre mooy Macky Sall ñun ba ñu amee moom dam jëkkawam ndax yàgg après nag bu ñu defee ay manifestation léegi ngeen ni cell da newuñ cell ah. ñun Macky Sall li mu bëgg ba muy sant Antoine Diome ngir mu dissoudre suñu parti bi Macky Sall li mu bëgg ba ñuy fekk ay nit seen kër di leen jàpp te ba tey jii waxuñ leen duñu leen jàppe Macky bëgg ba muy ñëw fii réew mi et ku ne na góor du wax kenn bu jëm ko yëngu ma jàpp tëj nit du bokk ci élection et ba mu demee ba maanaam li ëpp ci média classique bi lu dul neex Macky Sall xam ngeen damay wax hmm. lépp ci journaliste neex Macky Sall waaw defoon na téye na Sénégal dans la loolu la gëmoon citoyen lambda yi nag naan suñu parti bi ñu dissoudre léegi nangu nga ni ci nga bokk